يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم kooku lu ko wasal wàcc na bi nga xamee ne benn jigéen ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko yonent bi man damay nekk ci xaal boo xam ne waxtu woo xam ne du ma bëgg kenn dugg sama nekk te daal ku neex rek dugg nekk kala neex rek waxtu wala neex nga dugg ko te loolu daal neexute ndax booba booba néeg yi daanaka melutoon nii amutoon ay tabax te amut ay buntu amut rideau amut dara ndax boobu jamono yi ñàkk dara amut kon nag nit ki loolu moo tax ndaw su jigéen si ñëw daal di ko tawat ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nag wàccee laay ne yaa amanu yéen gaa ñi gëm alquran laa tadxulu bu leen xaraw buyutan ne gayra buyutikum bu dul néeg seen de hatta tastanisu ba te ngeen diisoo wa tusallimu te ngeen nuyu ala ahli ak ci ñoñam de daalikum loolu xayrun mu gën lakum ñeel leen de yàlla nag wax jullit ñëpp na ne bu leen dugg benn néeg lu duwul seen néeg lu dul ngeen a diisoo da ngeen di fëgg njëkk bu ngeen fëggee bañ wax leen ne leen dugg leen ngeen dugg de ndax loolu diisoo pare soogu dugg loolu moo gën ci yéen de laallakum ndax ci yéen tadakkaruna ngeen waaru de baragal yàlla gëm ko de fa in lam tajidu ndem fekk leen fi haa ci néeg ya ahadan kenn fala tadxuluha bu leen xarab ko xatta yudana ba ta digal lakum ñeen leen de bu ngeen ñëwee nag ci néeg ya fekku leen ko kenn bu leen dugg de ndax néeg jàmbur kenn waru faa dugg te fekkul fa borom man naa mu def ba loo xam ne bëggul kenn gis ko génn fàtte ko nga ñëw rek dugg ci néegam boo ko fekkul kenn bul dugg lu dul borom néeg ba digal la ne la boo demee man ngaa dugg duggal sama néeg waaye buñ la digalul bul dugg de wayin xi boo fëggee nag wayin xii la ndem waxeef nañ la kum ñeel leen irjiu del leen farjiu leen de bu fekkee nag da ngaa fëgg néegab jàmbur ne ko a ah, fëgg néegab jàmbur pour bëgg dugg min la déedéet bul dugg kon dellul de dellul bul dugg xamoo lu tax mi ne la bul dugg woo moom aska moo gën a laab la kum ñeel leen wallaahu yàlla alimun aji xam noon bi maa taamaluun ci lépp lu ngeen di jëf de laysa aleykum déet di war leen junaahun bàkkaar an tadxulu ba ngeen xaraf buyutan ne maskunatin a duumu néegi dëkkuwaay seen a duumu néegi ay dëkkuwaay te fiihaa nekk na ca moom matiaun ay njëriñ lakum ñeel leen wallaahu yàlla yaalam dana mu xam maa tubduna da ngeen feeñal ko maa taktumuna ak da ngeen nëbbule néegi yooyu nag ñu tere ne waru cee dugg dangaa diisoo dangaa laaj ndigal njëkk néeg yooyu nag néeg yi bokku ci comme lu mel ni hôtel wala bitik ñooñu moom bokkut heure bu nekk mën nga faa dugg ndax seen borom sax nga dugg fa sax moom moo leen gënal waxtu nekk rek ñoom ñi ngi seen ku ko dugg de yàlla xam na li ngeen di feeñal ak li ngeen di nëbbu yépp xam na ko de qul waxal lil muminina ñeel way gëm ñu góor yaxudu ñi ñi ñi damm min absaarihim ci gët seen de waaye axfaduuna te ñuy wattu furujahum ay pay seen de ah wa yaxfadu te ñuy wattu furujahum ay pay seen de yàlla nag digal na jullit ñi ñu góor ñi ne leen dee leen damm seen bët dee leen damm seen bët ndax tey wattu seen pay ndax bëri na nit di njaaloo fekk dara waru ko lu dul bëtam moo ko wax moo ko moo ko moo tax mu njaaloo ndax sa bët bi boo ko nekkee di xool ci dara di xool ci dara la budde mënta ñàkk mën na laa indil ay xelaat xelaat yoo xam ne xelaat yu ñaaw la xelaat boobu balaa mu laa bàyyi fekk dafa lu ñaaw rek njaaloo rek du la ci génne de moo tax yàlla wax ne góor ñi dañuy dëmm seen bët ci jigéen ñi buñ leen di xool yenn xool yi ndax mën ne leen jural ay xalaat bon te nañuy wattu seen pay de nañuy wattu seen pay yi ñoom góor ñi de zalika loolu azkaa moo gën a laab lahum ñeel leen inna allah naka yàlla xabiirun aji xam noonu bi maa yasmauna te da ngeen di jëf ko rek wa qul waxal lil muminaati ñeel way jigéen yaqdum nañu gëmm ñoom itam min absaarihim min absaarihim na ci gët seen de wa yaxfadna tañ wattu na ay pay seen nañ digalee góor ñi it ñii tàmm seen bët noonu lañ ko digalee jigéen ñi ñoom itam ñii tàmm seen bët ci góor ñi bañ leen a xool ñoom itam ndax ñoom itam mën nañ leen a xool seen bët dem ci góor gi seen xel nekk ci te su boobaa mën nañoo dem njaaloog ñoom kon moo tax yàlla ne eh, jigéen ñi yéen itam deneen damm seen bët ci góor ñi je eh, góor daal war xool kenn ku dul jabaram waaye tamit jabar war sa xool kenn ku dul jëkkëram de wala yubdiina buñ feeñal ñoom jigéen ñi zinatuhunna kaar seen illa ma zahara ndara la feeñ min haa ci ñoom jigéen ñi buñ feeñal seen taar lu dul la nga xam ne moo feeñ ci ñoom muy xaaxaram bi ak ñaari ténkal bi lu dul loolu jigéen warul koo feeñal de dara warul feeñ ci moom lu dul ñaar yooyu de wa wal yadribna nañu def ñoom jigéen ña bi xumurin na ci ay muuraay seen ala ala juyubihinna ci kaw baat seen ci kaw jigéen ñi nag yàlla am leen digal ne nañuy muuru buñ solee yére ba pare nañ ciy teg muuraay muur seen karaw ba du feeñ muur seen doq gi muur seen dënn ba nga xam ne dara du feeñ ci ñoom lu dul seen xar-xaram bi lu dul ak seen ñaari tënk yi de seen rek moo war a feeñ ci jigéen waaye lu may loolu rek loolu xawra la de wala yubdiina buñ feeñal ñoom jigéen ñi zinatuhunna ay taar seen lu may xar-xaram ba ak ñaari tënk illaa li buxulatihinna ndere jëkk ndere jëkkër seen de jigéen warta feeñal taaram lu dul jëkkëram rek la war wan ta taaram kon yàllaa ngi digal jigéen ñi loolu aw abaayihinna iki bàyyi seen jigéen benn cëram warta feeñ lu may xarxaram ak ñaari tënk ya lu may loolu jëkkëram rek la ko war wan de wala baayam ndax sa baay sa armante la moo tax nit ki baayam mën naa gis yaramam de lu may la ko dalee ci jimbaaxu ba ci bëti oom loolu baayam sañ naa gis yaramam de ndax armantem la aw aabaa'i bu'ulatihinna iki ay bàyyi jëkkër seen niki sa goro sa goro it sa armante la mu mën naa gis sa yaram aw abnaa'ihinna iki doom seeni góor wala say doom yu góor ñoom itam mën nañoo gis sa yaram aw am naay boolatihinna iki ay doom yu góor yi jëkkër seen sa doom ñi nga xam ne sa jëkkër moo leen jur waaye ay doom yu góor lañ sa jëkkër moo leen jur ñoo ngi say doom rek lañ kon jigéen mën naa ah, ah, ah, ñooñu mën nañoo gis sa yaram de aw ixwaanihinna iki càmmin seen wala say càmmin ñi nga xam ne yéen a bokku ndey ñooñu mën nañoo gis sa yaram de aw ba ni ixwaanihin ne iki doomi càmmin seen wala say doomi càmmin ñoom itam mën nañoo di seeram de aw ba ni axwaatihin na iki ay doomi mbokk seen yu jigéen de wala sa doomi jigéen sa doom yi nga xam ne sa mag yu jigéen moo leen jur ñooñu mën ngaa mën nañoo gis saawara de mën nañoo gis kon sa yaram ak aw nisaa'ihin ne iki jigéen comme yéen aw maamalakat iki la moom na ko ay maanoon na ay ndeyjoor seen Ah, ah, ah, ñooñu nag ñooñu mën nañoo gis sa yaram lu may lu lu ñooñu ñëpp mu tudd fii ci ci aay ji mën nañoo gis sa yaram lépp ba des da nekk sa diggante jam sa diggante jimba ak sa ñaari bëti omi de loolu moom jëkkër rek moo ko war a gis jigéen lum sàggan sàggan ay goroom ñëw ak góor ay doomam yu góor toog yooyu yëpp ñi wax noonu ñëpp waroo wax ne xaar moom woon leen sama aw déedéet da ngay nëbbu sa xawra sa xawra moom sa jëkkër rek moo ko war a de ak say jéebee ñi nga xam ne ñoom nekk ñoom nekk nañoo yore aw taabiina walla iki iki way topp ña ñam xay uli baati duñ way borom ak borom ak aaju ci jigéen xay uli ah ah daari ulil irbati duun ba borom ak haajo ci jigéen mi ne rijaali ci góor ñi awi ak ak góor ñi nga xam ne ñoom amul benn soxla ci ci jigéen ñoom daal dañuy topp ñami rek maanaam seen xel matut ñooñu noonu nga xam ne sax ñoom duñ góor duñ duñ jugal ñooñu noonu ba tey man ngaa feeñal ci mën nañoo gis sa yaram ndax ñoom amul soxla ci jigéen de amul benn soxla ci jigéen awi tifli di fi gone alladina ñi nga xam ne lam yazaaru awraati nisaay ci awraay jigéen ñi de ak ak yi ndaw yi nga xam ne ñoom xamuñ lan mooy xawra jigéen mosu ñoo xamuñ xawraay jigéen xamuñ bànneexi jigéen ñooñu mën nañoo gis tamit yaramu jigéen de dana dagan ñoom ñëpp ñu gis yaramu jigéen ba des li nekk ci diggante jimbax ba ak ñaari bëti oomi de wala yadribna buñ dox ñoom jigéen ña bi arjulihinna ci tàng seen li yoolama ngir na xamee maa maa yux fii na la def na nëbb ko min zinatihinna ci taar seen de jigéen nag buy dox bëgguñ euh, xam nga bu ne bu njëkk jigéeni arab yi dañ daan jël seen takkaay di ko takk seen tànk yi buñ ko takkee seen tànk yi nag takk ñaari takkaay buñ rombee góor ñi di ko yënga surtout góor ñi nga xam ne dañoo gaaw a yëg jigéen ñi koy loolu mën na leen a yëngal alquran nag ne yéen jigéen ñi julli ñi bu leen def loolu de bu leen def loolu ba ci jigéen ci jigéen ñi jamono ji alquran mi ngi leen wax ne bu leen dox eh, seen takkaay yi ngeen takk seen ndigg yi bu leen di yëngal seen tànk yi ñu naan kalang kalang kalang kalang mën naa yëngal góor ñi loolu noonu seen loolu seen taar seen jëkkër rek moo ko war a gis de watuubu tuub leen ila jëm ci yàlla jami'an mboole seen ayyuhal mu'minuuna yéen gaa ñu yéen ñu way yéen yàlla de tuub naa lillaahi wa rasul la'allakum la yéen tuflihuuna ngeen texe de wa ankihuu takk leen ayaama surga minkum ci yéen surga nag buñ ko waxee moy jigéen joo xam ne amul jëkkër jànq boo xam ne amul jëkkër wala jeeg boo xam ne amul jëkkër te nekkul ci yedd kooku moom la ñuy wax surga na ngeen leen takk rek laay yi moo folli laay ja leen jàngoon ne njaalokat bu jigéen kenn euh, euh, njaalokat bu góor warta takk lu may njaalokat bu bu jigéen kooku rek la war takk laay ji moo ko folli de yàlla mi ngi leen wax ne na ngeen takk surga surga mooy képp ku nekk sa kër rek nekk jànq te jëkkër wala jeeg boo xam ne mi ngi sa nekk euh, moom itam amul jëkkër kooku bu ngeen ko mënee takk takk leen ko de wa saalihiina ak way yu ñu min ibaadikum ci jaam seen ak e, e, e, julli ñi xam ne ñu yiw leen ñu baax lañ ñoom itam na ngeen leen takk wa imaikum ak i jéebee seen de na ngeen leen takk benn waaye ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko yow yonent sama jabar daal moom du delloo loxo mu ko képp ku ko nuyu rek rek mu jox la loxo yonent bi na ko fasi ko ñu ne waaye dama ko bëgg lool bi na kon muñal kon muñal de in yakunu ndem nekk ngeen na ngeen na ngeen takk in yakunu ndem nekk ngeen fuqaraa fuqaraa di way fuqaraa di way ñàkk a yugnihumullahu def na koom loon yàlla def na koom leen yàlla min fadli ci de wallahu yàlla waasiun aji yàlla mu ngeen alimun aji xam lu mu de bu ngeen ñàkkee sax na ngeen leen takk ndax yàlla man na leen jox man la nee koomal ci wërsëgam ma bokk na ci sabab sabab bi may nit wërsëg mooy takk jabar léeg-léeg nit ñàkk lool takk jabar yàlla ubbi ko wërsëgam benn waaye dafa ñëw ci Seydina Xasan seetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi boobu mi ne ko man daal damaa ñàkk taaw ba aw ma dara mënu ma am dara lu mu lijjanti rek du sotti Xasan ne ko dama nga takk jabar mu dem bëree ba takk jabar mu ñëw ne ko takk naa kat ñu ne ko demal nga bëree ba am aw fas mu bëree ba am aw fas ñu ne ko am na aw fas ñu ne ko am aw aw surga wu ba am aw aw surga wu koy liggéeyal ñu toog rek di ubbeeku mu bëri wërsëg lool ah beneen waaye ñëw ci moom ne ko Xasan man de damaa ñàkk aw ma dara mu ne ko takkal jabar mu takk gën a ñàkk amul dara dara dara dara dara amul ko ah mu ñëw ci Xasan ne daal ba ma takkee ba tey tey laa gën a ñàkk Xasan Xasan ma xam ne kii bokkul ci laaya ji yàlla wax ne in yakunu fuqaraa yuhumullahu moom bokkul ci ñooñ laaya jooju waaye ma seeti beneen laaya nattloo ko wa in ya ah, wa in yatafarraqa yuhnillahu kullan min siatihi eh, eh, ma ma xoolal ko laaya jooju ma ne ko fase ko bi mu koy fase rek daf koo fase rek rek yàlla ubbil ko wërsëg de mu ne damaa gis na bokkul ci aaya bee moom ci ñooñ aaya bi la bokk rek moo tax ba mu defee loolu rek ci la am ci la am ci la am de ñu ne ko xasan lii foo ko mu ne lépp ci alquran la nekk rek maa faratnaa fil kitaabi min shay'in wal yastafifi na mu fegu alladina na fegu wal yastafifi na fegu alladina ñi nga xam ne laa yajiduna amul nikaahan ak can ba mën a denc jabar ñi nga xam ne nag amuñ amuñ luñ joxee can amuñ dara duñ mën a may jigéen pour man koo takk ñoom nañ fekk de attaa yoon yi um laawu bokkoon yàlla min fadli ci yoon wi ñoom nag ñi nga xam ne nag amuñ benn pexe buñ mën a def ba am can buñ takkee jabar nañ fekk seen bopp ba yàlla jox leen alal ñi dem soo ko takki jabar de walladina waaye ñi nga euh, euh, euh, soo ko takki jabar de walladina ñi xam ne yabtaxuuna danañu sàkku alkitaaba jotoo mimma ma malakat la moom na ko ay ma ko ay ndeyjoor seen ci jaam ak jébéer fakkaati boobu jotoo leen ak ñoom jotoo leen ak ñoom ah in alimtum dem xam ngeen fiihim ci ñoom xayran ak kóllëre ak xayran ak kattan ci fàgguteef de jaam yi yore nag si seen kër yi bu ci kenn xëyee ñëw ne dama bëgg jotoo dama bëgg jotoo yow sangam nanga ko ko nangul nanga ko nangu de nga jotoog moom de waaye bu ko bañ a mukk bu la wóoree ne boo xamee ne kii kat am na kóllëre bu jotoo bu jotee bu jotoo ak man la ko laaj dana ma ko jox wala tamit kii am na pexe ba mën a dem uti kon bu sàkkoo ci yéen pour jotoo na ngeen moom de wa aatuum jox leen leen yéen sang yi min maalillaahi ci alali yàlla ji àlla ji nga xam ne aataakum jox na leen ko ah, alali yàlla ji nga xam ne jox nañ leen ko nag na ngi leen ci jox sa jaam bu ñëwee ci yow ne la dama bëgg jotoo nga ko léegi danga may jox ñaari junne mu yëkkati ñaari mu yëkkati eh, weer nangam dinaa la jox ñaari junne weer boobu mu mu jox la junne kon eh, ba mu la joxee junne mu ne la junne bu ci des ci weer sàngam dinaa la ko fay weer sàngam boobu bu ñëwee bu la joxee junne bu mujj bi yëkkati dara ci junne boobu nga jox ko ci de ndax alal ji moo ko alal yàlla la kon jox ko ci de wala tukrihu fatayaatikum alal bighaa'i kooku lu ko wasal wàcc naa ci Abdullah ibn Ubay ibn naa fekk bu rëy ba nekkoon Medina dafa amoon ay jébeer yu rafet xale yi jigéen yu rafet ay jébeer lañ ay jaam lañ waaye daal moom daf leen di liggéeyloo liggéey bi mooy liggéey guddi lañu def bu guddi jotee daal ñu sangu ba seen seen dem ci góor ñi nekk ak ñoom lañ fa am ci xaalis bu ñëwee jox ko Abdoulaye mu bay misalum ci loolu lañ nekkoon bàyyi mi ne métier moom moo bon métier moo xam ne dara mënu laa yow mënoo am alal lu dul ci joxe sa bopp ren nga soog a am bàyyi ñu ne moom moo bon moo gën a yées ci métier benn jigéen nag ci jigéen ña mu bañ ne moom daal moom daal du du du lii daal du ko def moom fegu na du dem mukk ci ay góor di nekk ak ñoom ñi bu paree ñu koy jox xaalis loolu du ko def. mu ñëw nag Abdoulaye bañ mu daw rek dem ci yonent na ko daal sama sang daf wax daal may dem ci góor ñi di ut xaalis bu mu ñëwee mu jox ko te man bëgguma koo def rek yàlla wàccee alquran de ne wala tukuru bu leen mënantee fatiyaatikum ay jéebéer seen alal ci njaaloo in arat na ndem na mu nañ taxasunan ak fegu de li tabtaxu ngir ngeen sàkko arada xaya ah aradal xayaati dunya gaar ak dund ak de Eh, yéen a ngi koy def nag ngir sàkku rek àddina loolu bu ngeen ko def nag ñoom buñ bëggee fegu nañ fegu de buñ bëggee fegu rek nañ fegu te loolu sax ñoom eh, loolu du métti mu baax sax boo xam ne nit daf ci def di tànn eh, fegoog ñàkk fegu jullit ci boppam doomu aadama ci boppam moo war def loolu di jaay boppam di jaay boppam ñu koy jox xaalis loolu kenn waru koo def de wa man yukrimhunna ku mënante leen fa inna allah nak yàlla min baadi ikraihinna ci gannaaw ma ne seen gafurun aji aji baal la mu leen rahimun aji yërëm la mu leen de waa ji mi ne laaj nañ bàyyi fii radiallahu anhu na ko waaw ndax baal googu gafuru rahim googu ndax ci ah, mawaali bi lay ci waa ji lay jëm wala ci wala ci wala ci ndaw si mi ne ci ndaw si ko forcé ba def loo ko loo xam ne bëggul koo def yàlla bu ko defee gannaaw loolu yàlla dana ko baal de yàlla dana ko baal bàkkaar ba mu ci am mm-hmm. wala qad anzalnaa ñun de wàccee nañu ilaykum jëm ci yéen ayatin ay kawte mu bayanaatin ay aji bit wa matalan solo yi borom ak kéemtaan ni solo ak Aïcha de min alladina ci ñi nga xam ne xalaw dawoon na min qablikum ci njëkk seen ah, yàlla nag wàccee na leen ay aay yu ay solo yoo xam ne borom ak kéemtaan la ni solo ak Aïcha mi nga xam ne moom lañ jàngatoon démb la ca xew yépp muy borom ak kéemtaan de mu nuroo ak ak solo yi nga xam ne ñoo paase woon ni ki euh, yusufa ak mariam ndax yusufa ji ñoon nañ ko njaalo waaye gis nga yàlla setal na ko mariam it ji ñoon nañ ko njaalo waaye gis nga yàlla setal na ko de wa mawidatan udigwaar lil muttaqina ñeel way ragal yàlla de allahu yàlla nuuru samawaati mooy aji leeral asamaani juróom-ñaar wala deeg suufi juróom-ñaar yàlla mooy ki nga xam ne mooy leeral asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar wala suufi juróom-ñaar de moom mooy leeri asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar ndax moo fa moo fa teew moo teew ci lépp moom yàlla te fu teew rek lëndëm nekkut fa de leer nag ñeenti xaaj la leer goo xam ne daf lay wan yëf yi nga koy gis te moom du gis ni ki leer ak jant bi ak leer ak làmp leer ak sondeel loolu yëpp mën na laa wan waaye moom yëgu sax ne yëgu ci dara ak leer goo xam ne moom daf lay wan yëf ba pare euh, di ko gis daf lay wan yëf yi nga koy gis ba pare moom mu a gis ni ki leer ak bët wan na na ko wan na la ba nga gis waaye moom itam mi ngi gis de ak leer boo xam ne <clears throat> ah, mooy leer goo xam daf lay wuññil li nëbbu nga gis ko moom itam mu koy gis ni ki leer ak xel sa xel mi tey bu la dara nëbbee bu la dara fàddoo mën nga koo xalaat léegi sa xel mi nga xam ko nu mu tegee ak nam nekkee xel mi loolu leer ak xel la <clears throat> ak leer goo xam ne daf lay jëlee dafay jëlee euh, euh, lu ñàkk indi ko ci am leer googu de ñeenti leer yooyu yëpp nag leer ak yàlla de yàlla moo koy leeral de <clears throat> masalu nuuri yi melaw leeram ci xolob jullit ka miskaatin nakak nakak feneetar la bu bu bu buñ bënnut fii a aji nekk ci ci ci moom misbaaxun lamp al misbaaxun lamp fii zujaajatin aji nekk la sig weer ak zujaajatun weeram ka annaa dafa mel ni moom kaw ko bun biddiw la dur yun buy aji leeral de euh, miskaat bi nag mi ne misaalam leeram dafa mel ni kom euh, fenêtre boo xam ne dañ koo tabax te bënnuñ ko xam nga néeg boo ko tabaxee nga bënn fenêtre bi mu génn leer bu ñëw rek dal fa da nga gis dafay génn ci biti waaye fenêtre boobu moom amul fenn foo xam ne leer gi mën na faa jaar leer gi daf ne topp rek nekk ca nekk ca néeg ba rek du génn de miskaat bi nag moom la melalee dënnab jullit bi moom la ko melalee dënnab jullit misbaaxu bi mooy gëm yàlla mooy gëm yàlla mooy gëm yàlla gëm yàlla jullit bi su ah, ah, jaaje bi moom mooy xolob jullit bi de moom mooy xolob jullit bi min shajaratin ci garab mu tikkeekoo ci garab mubaarakatin ba di buñ barkeel zaytunatin muy garab ak zaytun laa sharqiyatin déet muy aji nekk ci penku wala garbiyatin du caagee so zaytun boobu nag moom mooy garab ak zaytun googu di ko leeral nekkul ca ah, penku ndax bu nekkoon ca penku kon tàngoor wi dana ko sonal waaye nekkul ci so ndax bu ko nekkoon sedd bi dana ko sonal kon nekkul foofu yëpp nekkul nekkul penku nekkul so de mooy lan mooy alquran yi nga xam ne moom mooy wàcc di roose xol boobu nga xam ne am na ak gëm yàlla alquran boobu di wàcce nag jugewul penku jugewul xarfu ci yàlla la jugee de yakaaru dana mu jege zeytuha ak diwam yuddi u di leeral walaw lam tamsasu dilee laalu ko naarum safara de su fekkee dënn boobu dënn jullit boobu yàlla wàccee na ci yàlla wàccee na ci leeram yàlla wàccee na ci leeram muy misbaa wàccee na ko wàccee ci gëm yàlla alquran bi di ko roose ci dënn bi alquran bi nga xam ne jugewul pénku jugewul xarfu di ko roose moom xolam leer na xolam leer na am na leer am na ak mbaa te boobaa jëfagu dara sax ci jëf yoo xam ne eh, jëf yu baax la kon kooku leer na leer min ci moom ci biir dëndam ngir alquran bu ci nekk ak gëm yàlla bu ci nekk te eh, te leer sax eh, te te booba leer duggagut ko léegi nag leer ak bu ñëwee nag jëf nag jëf nag jëf yu baax di julli di oor di def yu fi baax ñu ne boobaa nuurul leer la ala nuurul ci kaw ak leer de yaa di laaw dana jubal yàlla li nuur yi ci leer ak eh, eh, eh, gëm lislaam man yashaaw koo soob de waaye di def na biral laaw yàlla lam saale léegi li naas ñeel nit ñi wallaahu yàlla alimun aji xam na bi kulli shay'in ci lépp lépp de ñuy tudd yàlla nag fii buyutin ci néeg ah azina allahu na yàlla an bu yëkkatee ñi ñi yëkkati ko ñi nga xam ne nag dañuy tudd yàlla ci néeg yi te mooy jàkke yi yàlla digal na ne nañ ko nañ ko yëkkati moo tax jàkke yi jumaa yi dañ leen a war a yëkkati ñooy tabax yoo xam ne ñoo war a gën a kawee ca dëkk ba dañ leen a war a xàmmee ràññee leen ndax yàlla wax ne nañ leen yëkkati yëkkati leen ci tabax mu ne say ci kaw euh, euh, nga xam ne foo toll da nga gis xam ne lee mooy néegam yàlla bi nga xam ne yàlla digal na fa ñu fay dem di jaamu yàlla de woyu karata ñu tudd fiha ci néeg yooyu ismuhu turam de yu sabihu danañu julli law ñeel ko fiha ci moom bil xuduwin ci lal wala asaaleeg ngoon de ñi fay julli nag ci suba ngoon yu jaalun aw góor lañ ñoo xam ne laa tubi him but ah soxlaa leen tijaaratun yaxatu yaxantu seen wala bayoon di caageen ak njaay an zikrillahi walis tudd yàlla de ñi nga xam ne nag ñooy dundal góor jàkk yooyu mooy góor ñi nga xam ne seen yaxantu yu nekk seen commerce yu nekk di jaay soxlaa lu leen walis tudd yàlla de ànd ak nag ña ngi koy def ñi ngay yaxantu ñi ngay jaay ñi ngay jënd waaye fu julli jotee rek dañ naan bëre rek dem julli de topp yàlla de ñëwaat ñi taxawal julli wa wa itaari zakaat ak joxe asaka yaqaafuna danañu ragal yawman bés yawman bés tataqallabu def na yëngutu fii ci moo alqulubu xoli wal absaaru bët yi de ñi ngay ragal nag bés boo xam ne bés boobu keroog xol yëpp dinañ ci yëngatu de ak xol ak bët yëpp amilu gën jaarafe ca lañ doon jëf de wa yaziduhum te def na dolli leen min fadli ci yow wallahu yàlla yarzuqu dana mu wërsëgal man yashaaw ku man yashaaw ku mu soob bi xayri xisaabin ci lu dul xisaab de kon jullit ñaangoo yàlla nee na ñooy ñi nga xam ne ay góor la ñoo xam ne dañuy dundal néeg yàlla yi ci tudd yàlla ak ci jaamu yàlla guddeeg bëccëg te dañ fay te ñoom seen yaxantu du leen tere wëlis ñi jaamu yàlla de ñi ngay def nag foo leen fekk ñi ngay ragal pencam yàlla bés boo xam ne bu ñëwee mbooleem xol yëpp dana yëngatu ña ngi koy ragal de moo tax buñ demee pencam yàlla yàlla dana leen fay gën jaare te leen doon jëf te dana leen fay dolli leen ay fay ca fayam loo xam ne kenn mënu koo lim de walladina waa ñi nga xam ne kafaru wét nañ amaaluhum ay jëf seen eh, ka sarabin eh, niki niki ñanoo biqiatin ci pakk yaxsibu daf na njott ko gam aanun aji mar maa an muy ndox de hatta ida jaahu topp ndem dikkal na ko hatta ida jaahu ndem dikkal na ko lam yejidu lam yejidu deful fekk chey an dara wajada allah tam fekk yàlla en fa moom de foo tam matal xisaabu ak fayam mi ne nag ñi nga xam ne ñoom ñoo wét yàlla gëmuñ yàlla xam nga seen jëf naka la melam dafa mel ni jannoox mi ne noonu la mel noonu la mel janox mooy lan mooy booy dox tey ci naaj ci naaj wu tàng ngay dox di dox ci teli lay gën a feeñee ci gadron ngay tukki ci naaj wu tàng da toog ba ci yàgg rek nga gis ca kanam mel ni ndox moo fa nekk waaye boo demee da nga xam ne ndox nekku fa te dara nekku fi dara nekku fa ñoom yéeféeri tamit seen jëf li ñuy jëf ci jëf yu baax di saraxe ak seen jokk mbokk ak lu ñuy def yépp teg na buñ demee deneen ko fekk ci yàlla mu fay leen waaye fekk buñ demee duñ ko fekk dara dara dara dara lañ ko dul fekk ndax jëf ja la ko jiitu mooy gëm yàlla njëkk dañoo waroon a gëm yàlla njëkk buñ gëmee yàlla nag lépp luñ def ci lu baax yàlla dana ko nangu de waaye su fekkee nag gëmoo yàlla gëmoo yàlla gëmoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam gëmoo alquran gëmoo dara jëf ju baax yoo mën a jëf tamit dara du la ci fekk lu dul janox lay doon de wallaahu yàlla sariwul xisaab aji gaaw la mu ci xisaab de wala mu indiwaat beneen léeb mi ne aw ka wala aw ka wala aw ka zulumaatin wala dafa mel ni ay lëndëm fi baxrin ci géej lu ji bay aji xóot yaxshaaw def na muur ko mawjun duusi géej min fawqi aji nekkale ci kawam mawjun weneen duusi ñaareel min fawqi aji nekkale ci kaw duusi ñaareel woo saxaabun niir zulumaatun ay lëndëm baaduha nekk na ci kawam a baaduha lenn lem foo ko baadin aji nekk la ci kawam de ñu ne wala dafa mel ni jëfam jëfi yéeféer bi dafa mel ni comme ay lëndëm moom jëfam dafa mel ni ay lëndëm boo xam ne dafa nekk ci biir géej géej boo xam ne géej bu xóot la géej googu nag ah du si géej yi ñëw dal ci kawam moom ba mu nekkee ci biir géej gu xóot googu du si géej yi ñëw tegu ci kawam beneen du si géej ñëwaat tegu ci kawam beneen niir nag ñëwaat tegu ci du si géej googu lëndëm mu daj xapp lëndëm nekkee ko ndeyjoor nekkee ko càmmoñ lëndëm teg nga xam ne nga xam ne idaa axraja ndem génne na yaddu loxoom lam yëkkat jegewut a yaraa ji gis ko de nga xam ne bu génnee loxoom bi sax du ko mën a gis noonu la mel ñoom seen jëf yi noonu la mel buñ jëfee jëf yuñ mën a jëf buñ demee ci àllaaxira noonu lay mel de duñ gis dara dara dara duñ ko gis duñ jege sax pour gis ko de lañ jëf ci lu baax de wa man lam yajal wa man lam yajal ku jubul ah, ah, wa man lam yajal ku deful allahu yàlla lawu ñeel ko nuuran ak leer fa maa lawu dee di ñeel ko min nuurin ci leer de ku yàlla jublu daal kenn mënu laa jubal yàlla ñu yàlla jubal alam tara kana xamul anna allaha naka yàlla yusabbihu def na sabbal lahu ñeel man bi samawaat la nekk ci asamaani juróom-ñaar wala ardeeg suufi juróom-ñaar wa tayru ak ak mboolem janaaw saafaati ñey aji tàllal seen mbagg de kullun képp ñoom xar alima xam ne yàlla salaatuhu ak ju wa tasbihahu ak sabalam de wallaahu yàlla alimun aji xam nu bi maa yafaluuna la da ngeen de mi ne nag yàlla nag ne kanaa gisu leen ne kanaa xamu leen ne lépp lu nekk ci asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar dafay sàbbal yàlla njanaaw yi ci euh, euh, kaw jaww ji yëpp dañuy sàbbal yàlla njanaaw yi boo leen gisee ñi naaw tàllal seen mbagg di def nii rek booba ña ngay sàbbal de garab yi dañuy sàbbal yàlla garab boo gis mu jaawi def nii def loolu mooy seen sàbbal yàlla de lépp loo gis rek lépp euh, lépp rek lu nekk ci asamaan suuf dafay sàbbal yàlla de yàlla nag xam na ku nekk na muy jullee xam na ku nekk na mu koy sàbbalee de walillaahi nekk la ñeel yàlla mulku samaawaati nguur ak asamaan yi juróomi ñaar juróom-ñaar wala de suuf yi juróom-ñaar de ci magasin taw bi ak magasin wërsëg ak magasin gàncax lépp moom yàlla xam na ko de wal masiru delluwaay bi ilallahi jëm na ci wal masiru delluwaay bi ilallahi jëm na ci yàlla de kanaa gisul anna naka yàlla yus ji danu màng sahaaba niir summa yu allifu topp mu boole ko bay na wuti diggante seen summa yejaaloo topp mu def ko rukkaaman muti niir wala rukkaaman muy aji rankaloo fa tara gisaan nga alwaxta tawba yaxruju danu mu génne min xilaal yi ci génn waayam de wayu nasilu danu mu wàccee ne samaay tukkee ko ci asamaan min jibaalin ci doj fiyaa aji nekk la ci moom min baradin ci yuur mooy taw boo xam ne dafay mel ni galaas wala min baradin ci eh, ci dënnu de fa yusibu dana mu jot bi ci moom dënnu ba man yashaa ku ko soob wa yasrifu daf na soppandi ko an man yashaa walis ko soob de yakkaaru dana mu jege sana barqihi leer ak leer ak mel la xam yadhabu di demee bil absaari ci bëri de yuqalibu laahu daf na jàlla bi yàlla al layla guddi wa nahaar ak bëccëg te du yàq guddi geeg bëccëg ga yëpp seen dox ci loolu de inna fi zalika naka nekk na ci loolu ci ci loolu ñu tudd ci googule jàllar bi la ibratan tegtal li ulil absaari ñeel borom bët yu ñeel borom bët yi nga xam ne ñooy am gis-gisi xol de wallahu yàlla xalaqa bind na kulla daabatin bépp aji yukkat min maa in mu tukkee koo ci ndoxam ma niw de lépp loo xam ne gis ngeen ko mu nekk muy dox rek ci àddina nga xam ne am na yàpp rek ci ndoxam mën niyu la bàyyi ko de fa minhum aji nekk la ci ñoom man yamshi ka dana ka dana mu dox ala batnihi ci ci biiram de niki jaan yi ak yenti yenti ñoom nga xam rek la ñuy doxee ci ñoom man yamshi ka mu dox ah, ci ñaari tànkam de niki doomu aadama ak njanaaw yi de wa minhum aji nekk la ci ñoom man yamshi ka danu daa ala arbain ci ñeenti tànk de niki bàyyi ma yi ak julikat yi yaxluqullaahu danu bind yàlla maa yashaa lu ko sob de inna allaha naka yàlla qadirun aji hattan la mu ala kulli shay'in ci lépp lépp de yàlla nag gis nga liñ gënantee amee doole noonu la ko noonu la ko toftalee xam nga léeg-léeg ñenn doomu aadama yi daneen yaakaar ne ku amul tànk du man a daw daw yu daw yu daw bu gaaw fekk nit ki mbindeef bi yàlla bind nu mu gën a bëri tànk rek noonu la ay doxam yéexee gis nga jaam bi bi amul tànk moo gën a gaaw borom ñeenti tànk buñ ko doon dàqee duñ ko jot ndax booba la kàttanam gën a ëpp borom ñaari tànk yi moo gën a gaaw boroom ñeenti tànk doo ñi am ñaari tànk ñoom ñoo ci topp ñoom ñoo ëpp doole ci daw ñoom itam ñoo gën a ëpp doole borom ñeenti tànk moo tax borom ñaari tànk man naa dàqee boroom ñeenti tànk jàpp ko borom ñeenti tànk moom moo gën a yéex dox moo gën a yéex dox de niñ amantee doole rek noonu leneen yàlla noonu la yàlla toftalee gis nga jaalaari nga xam ne daanaka am na lu ma ñeent fukki tànk bu doon dox fii man naa déparé fii di dox bañ taf si ba génn te moom ak but ci buntu kër gi de loolu nag nit luñ gën a bëree tar rek seen dox gën a yéex de laqad anzalnaa ñun de wàcce ayatin ay kaawte mu bayyinaatin ay aji leer te mooy alquran wallahu yàlla yaati dan mu jubal man yashaa ko soob ila siraatin jëm ci yoon mustaqim gi aji jub te mooy dina islam de wa yaquluuna wax ñoom naafiqi ne aman naa dëggal nañ billaahi ci yàlla bi rasuli ak yonent wa atax naa topp summa yatawalla topp dëddu de ñooñu la gaa yi bil mu'minina ñuy way gëm de wa idaa du'u ne woyof ne ilallahi jëm ci yàlla wa rasuli ak ci yonentam li yàquma ngir na ngir na mu àtte baynahum ci diggante seen idaa am ci la fekk fariqun minum ci ñoom moo du ne ñuy way dëddu de gis nga naa fekk dañuy wax ne gëm nañ yàlla ak gëm nañ yonent waaye heure buñ amee problème nga xam ne nekkuñ ci dëgg rek buñ leen waxee dem leen ngeen topp yonent bi dem leen ci yonent mu àtte leen ñoom duñ nangoo dem ci yonent bi mu àtte leen wàcc na ci ñaari ñoo xam ne ñaari yahud yoo xam ne dañ doon këccoo ab suuf kii ne moo ko moom kii moo ko moom ñu ne nañ dem ci yonent bi ñu ne buñ dem nañ dem ci Kaab ibn Ashraf moom buñ fa demee ku ko nger rek mu àtte ñi dem dañ demee mu àtte leen de bépp buñ naafeq yi buñ nekkee ci dëgg duñ dem daneen dem ci yonent yi mu àtte de waaye buñ nekkul ci dëkk kenn mënu leen a yóbbu ci yonent yi bañ àtte leen de way nekkun dem nekk na lawum ñeen leen alxaqu dëgg yaatu nañu dikkal amul ay nii nañu di way gaaw ilay jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de boo xamee nag ñoom ci dëgg lañ ne ñoom ñooy njëkkalaante sax daw dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de gun ne afi qulubihim aji nekk la ci xol seen ndax aji nekk la ci xol seen maradun kéefee euh, euh, kéefee amir taabu wala wala sikk de am yaqaafuuna am da ngeen ragal an yaxifa allahu ba jeng ak yàlla alayhim ci ñoom wa rasulu ak yonentam wala da ngeen ragal ne yàlla ak yonent dañuy jeng seen kaw ba tooñ leen déedéet dañoo dañoo saay-saay rek bal bàyyi wulaay bi ñooy la gaayum ñoo di way tooñ de innama innama na naka nekk na xawlan muminina waxi way gëm ña ida doowu ndem waay na ilallaah jëm ci yàlla wa rasulu ak ci yonente li yaxkuma ngir mu atte baynum ci diggante seen julli ñi nag ñoom nag buñ leen ooyee ne leen dem leen ci yàlla ak yonentu a àtte leen ñoom nag an an laka ndey an an naka lay mbir te mbir yàqul da leen wax ne same naa dégg nañ wa ataanaa topp nañ de wulaayka ñooñu ne gaa yi um ñoom al muflixuuna ñoo di way texe de waman yutia ku topp na allah yàlla wa rasula ak yonentam wa yaxsa tam ragal allah yàlla wa yattaqi tam teet la muy tere wa ulaayika ñu nga gaawum ñoom alfaa'izuuna ñi di way texe rek wa aqsamu gëm gëm nañ billaahi ci yàlla jaade ay maanim da yóbbu ngañ seen eh, eh, eh, ne la in la in amartum ndem digal ndem digal na leen moom yonent ci ci jihaad la yaxrujunna xal na ñoo génn de naafeq yaa ngay gëñ de gis nga bu ñu wóoree ne yonent bi mën naa toog lu yàgg xare du am day ñëw rek yonent bi di gëñ billaay nangam di gëñ na ko boo amee xare daal jënd leen génn de waaye nga bu xare ñëwee ñoom buñ xamee ne xare ñëw na rek ñoom ñu dem feebar de waaye buñ wóoree ne fii ak weer xare du am ñu dem rek toog ci yonent bi di wax loolu di gëñ na muy yàlla ne pour waxal ñeen leen laa tuqsimu bu leen gëñ aajowut gëñ aajowut gëñ taatun topp maarufatun bari buñ xam ñeel yonent bi rek maanaam topp leen topp guñ xam rek mu ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp leen ko rek waaw topp leen ko rek waaye li ngeen di gëñ ñii naan nangam ak nangam ak nangam dara du ci dëgg topp leen ñu leen ci rek inna allah nag yàlla xabirun aji xam nañu bi ma taamaluuna ci lépp lu ngeen jëf de mooy képp koo xam ne topp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wax wuuteeg moom ci jëf yàlla xam na ko waaye topp yonent bi eh, eh, képp ko képp daal topp yonent bi daal mooy topp ko ci lépp ngir topp yonent bi nag mooy buntab mucc ñeel jaam bi ñetti yëf mënuñoo tàqalikoo fu ko yàlla tuddee rek tudd morom nga gisee fu mu ne aqimu salaat lu mu cay teg atu zaka ne taxawal leen julli rek ne joxe leen azaka ñaar ñooñu ñu tàqalikoo fu mu ne atiu allah wa atiu rasula topp leen yàlla topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne topp yàlla mukk ak xaal boo ko mën a defee mënoo topp mënoo topp yàlla fépp fu tuddee ne santal yàlla man kee teg na santal sa ñaari waajur ñaari yooyu mënuñoo ñett yooyu duñ tàqali ko mukk kon nag nit nga noonu tamit ñett yi duñ tàqali képp kuy oote ñett ci lu ñett kooku dafay fenn waxu dëgg képp ku oote ne dafa bëgg aljana ne du dundale ci alal ji ko yàlla jox kooku dafay fen waxul dëgg bëggul aljana ndax yàlla moo ne lan tanaalu birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuuna ku bëgg daal aljana dana dundale li ko yàlla jox <clears throat> kenn du am gëm yàlla dul ku dundale li ko yàlla jox gëm yàlla na ku ko am rek jëm aljana képp koo xam ne oote na mbëggeel ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne da ngaa bëgg yonent bëggoo ñàkk ñi faqiir yi bëggoo leen kon da ngay fen bëggoo yonent yàlla Muhammad sallallahu ndax saxaaba yonent bi ay fuqaraaw la kon bëggoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de képp ku oote ne dafa bëgg yàlla ba pare di mooy yàlla guddik bëccëg subaa ngoon kooku dafay fen bëggul yàlla de képp ku bëgg yàlla du mooy yàlla mukk de kul waxal aateo topp leen laa yàlla wa aateo te ngeen topp a rasula yonent bi fa in tawalaw ndem te du ngeen fa innama alay naka war na ko maa maa xumila la def na togg ko mooy jotal wa aleykum aji war leen maa umiltum la def na toggeef leen ko de yonent bi daal topp leen yàlla ak yonent képp koo xam ne dëddu na nag yonent moom dara waru ko lu dul lañ ko topp mooy mu jotal rek yéen itam dara waru leen lu dul ngeen topp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moo leen wa wa in tuti'u ndem topp ngeen ko tahtadu da ngeen jubde bu ngeen ko toppee rek da ngeen jubde kon yooni mucc ngoo yooni mucc yaa ngi koy amee ci buntab jaamu yàlla ak topp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhbibkum allah képp koo xam ne wax ne ne bëgg na yàlla na topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de rek yàlla bëgg la képp ku bëgg yàlla daal na ma topp rek yàlla bëgg la wa ma ala rasuli de di war ak yonent illa al balaagu ndere jotal ndere jotal al mubinu ngay aji bidde waada allahu dëgal na yàlla alladina ñi nga xam ne amunu gëm nañ minkum ci yéen wa amilu te njëf as saalihaati farata yaag naafile la yastaxlifannahum dana mu kuutal leen fil ci suuf kama staxlafa naka mu kuutale woon alladina ñi nga xam ne min qablihim min qablihim aji nekk leen ci njëkk seen de nag wax na ci aaya bii ne dëhal na julli ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla ne dana leen kuutalal ci suuf naka mu ko kuutale woon ñu leen njëkkoon ni ki banu israil ñoom bañ xeexee jabaabirat yi bañ leen xeexee yàlla xalak na mboolem jabaabirat yi fa nekk waa banu Israayil ak doon nu suusale kon kuutalal neneen fa xilaafa nag mooy kuutal rek kuutal jëmm ci palaas léegi-léegi nit ki nekkoon ci palaas ba fàttu ñi ne kii dañ koy kuutalal keneen mu kuutalal ko wala nit nekk si palaas sax mu wala nit nekk ci pa nit nekk ci place mu dee ñi ne nañ oo ku toog palaasam kuutal ko wala nit ki nekk sax di dund waaye dem na ba màgget amatul kàttan bu mu mën a diriger lañ ko joxoon mu fal kenn kuutal ko ngir tere ko ko na ko yow fal naa la nga toog fekk moom muy dund loolu danay am loolu nag moom la yàlla defal wël yu muy nekk ci kaw suuf yëpp loolu la leen defal moom yàlla wax na ne wali yu ñooy xalifa yàlla ci kaw suuf ndax dafa tere yàlla fàttu wala ndax yàlla dafa dee yàlla fàttuwut deewut min fi waaye daf leen koo defal ngir teraangal leen ko rek moom moo tax ne fal naa ne eh, eh, moo tax leen eh, moo tax mu def wali yoom ñu nekk ay xalifaam ci suuf de yàlla nag ne bu ngeen yàlla danga nga leen dëxalal yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla di jëf-jëf yu yàlla dana leen donnloo Ah, ah, ah, dana leen donnaloo ci suuf naka mu ko donnelee woon njëkk ña nit yi banu Israayil bàyyi nag mu ne yàlla la mu nag ba tey man ca la mu waxoon moom ba tey man ca dara mënu koo dindi ñin nag nekkee ca lam wax lam ñu waxoon rek danañu ko jox de mi ne eh, eh, eh, saxaa jullit ñi ca njëlbeen ci njëlbeen ak islaam jullit ñi seen njëlbeen dañoo jàppoon dañoo tiitoon dañoo ragaloon yéeféeri lool moo tax ñu gàddaay jugee Màkka jëm Madina mujj di xeex ak ñoom ba yàlla def ñi not mbooleem jaziratul arab lépp ñu not leen bañ leen notee nag am kóllëre ak am amaana yàlla nag lam tigi woon xeet wa ca ca njëkk moom la digal xeet wu mujj wi ne buñ nekkee ci la leen yàlla digal mooy topp ay ndigalam topp ndigali alxuraan bàyyi ay tereem roy yonent si yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci mboolem jëf ak i wax kon yàlla dana leen kuutalal ci suuf naka mu ko kuutalee woon ñeneen jiitu woon de bàyyi mi ne ci laaye ji ci la aarifuna al kumali aarifuna yi nga xam ne ñu mag lañ ci lañ génnee ne kon xaatimi wilaaya ci lañ ko génnee ne war naa am gannaaw yonent yi am nañ xaatim rek ku leen mottali te mooy yonent yàlla Muhammad wali yi war nañoo am xaatim ndax yàlla dafa wax ne la yastaalifannahum fi l ardi kama staalafa min qablihim kon nag gannaaw yàlla wax na loolu kon it wali yi wali yi gannaaw yonent ñoom itam na yonent yi amee woon xaatim ñoom itam dinañ ko amee xaatim de ki njëkk wax ci loolu nag mooy Hakimu Tilmisi moom moo ci njëkk wax moom tuddoon na xaatimul wilaayati muhammadiya tuddoon na ay mandarga keneen ka mooy ibnul arabi ak ibnul arabi al xaatimi moom itam doon na xaatimul wilaayati muhammadiya tuddoon na turam tuddoon na tuddoon na kon dëkkam tuddoon na barabam tuddoon na turam mooy ibnul arabi al xaatimi waxoon na ne faas lay feeñ te bu feeñee faas dafa dana bëri yàlla dana ko nattoo ay nit ñu koy weddi ñu bëri mu taalif téeréem boobu nga xam ne moom la tuddee anqaawul maghrib fi qaatibul awliyaa wa shamsil maghrib moom la ko tuddee junj na fa ay yëf eh, wax na fa ci biir téere ba ne junj na fa maqaamam katmiya ndax tudd na ci téere bi shams shams nag muy jant kenn mënu koo xool dëgg-dëgg xool kenn mënta xool jant rek fixé ko sa bët yi loolu mi ngi lay junji na maqaama borom tëtwee kenn mënu koo xam ne tamit tudd na ca téere ba maghrib ne fa feeñ fa feeñ tudd na ci maghrib mbooleem yonent yi yàlla mosu yónni la ko dalee ca àddina fam sosoo ba ci mu jëkk àddina benn yónnantu yàlla mosu koo yónni mar maghrib mosta am mi ne nag booba ndeke yàlla moom fa denc mbóot moo xam ne kenn waru koo xam kon mooy palaasu fi nga xam ne fa la yàlla denc mbóotam muy katimiya fa lay feeñ mi def na ca ay màndarga yu wane daal ne xaatimil wilaayatil muhammadee dina am de kooku nag ñu doon junjoo mooy Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu de moo tax yàlla ne waada allahu alladina amanu la yastaalifan la yastaalifannahum fi l ardi kama staalafa alladina min qablihim wala yumakkinanna wala yumakkinanna daf na jàppandal leen lahum ñeen leen diinuhum diine seen alladi nga xam ne irtada gërëm na ko lahum ñeen leen te mooy islam bu boobaa yàlla dana leen jàppalal seen diine jii nga xam ne mooy diine lislaam mu kawe mboolem diine yi wala yu baddilannahum dana mu wattee leen min baadi xawfihim fa gannaaw ragal seen am nan kóolute de gannaaw bu ngeen ragalee nag yàlla dana leen may kóolute de yàlla may na leen ko ndax not nañ mboolem jaziratul arab de yaabuduna nii yaabuduna nii ngeen wéetal ma ak jaamu boobaa laa ngeen wéetal ma ak jaamu laa yushrikuuna bu leen bokkaal bii ci man sey andal de wa man kafara ku weddi na baada zaalika gannaaw loolu fa ulaayika ñu ñële gaay ñoom ñoom alfaasiquuna ñu di way génn topp de xéewal googu nag képp ku ko weddi rek génn nga ci ci topp de ñi njëkk weddi xéewal googu mooy ñi rey Seydina Osman ñi raam bi ñoom ñoo ko yàq mooy ñi rey Seydina Osman te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne bu ñu jëlee jaase teg ko sama xeet ba rey fa nit <clears throat> yàlla dootu dootu leen dimbaleeti ba pencam yàlla du leen dimbale du yëkk du yëkkateeti loolu ba pencam yàlla ña yàq loolu nag mooy ñi rey Seydina Ousmane moo tax bi ñu ko bëggee rey wax ne leen ne bu leen ma mhm. bu leen ma bu ngeen ma reyee dootu leen taxawati ci gannaaw benn buuru jullit di xeex bu leen ma rey ñu ne ko dara danañ la rey bañ koo yàqee bañ wéttee xéewal ak yàlla boobu mu defaloon nag ci la xeet nekk ci problème bëgg si tey yii ñu toog fii de hmm. li sobb loo teg waati allah wa aqimu taxawa leen asalaatu julli waatu joxe leen azakat azakat waati wa topp leen hmm, arasula yonente la allakum ndax yéen turamuna yéram leen de yaa ayyuha alladina amanu kooku lu ko wasal ah laa taxsibanna bu leen jorto alladina ñi nga xam ne kafaru weddi nañ mu'jiziina ñi di way way raw ñi de fil ardi ci suuf wa ma'waahum tàbbuwaay seen annaaru mooy safara wala bi na almasiru safara laa de yaa ayyuhal ladina aamanu loolu kooku lu ko wasal wàcc na bi nga xamee ne ci njëlbéen ak islaam comme nañ ko waxee woon sànq nit ñi dañ daan dugg ci jullit ñi di dugg ci néeg ku la neex rek nga dugg néeg bu la neex rek nga dugg néeg bu la neex rek nga dugg néeg bu la neex rek yàlla nag ne yaa ayyuha alladina amanu ee yéen gaa ñi gëm alquran li yastadinukum na diisoo alladina ñi nga xam ne malakat moom na ay maanukum ay ndeyjoor seen ci jaam seen jaam yi ngeen am nañu di diisoo bu ñu dugg ci néeg walladina ñi nga xam ne lam yablugu jotuñ alxulu alxuluma gént minkum ci yéen niki ndaw yeeg ñooñu salaasa marratin ñetti waxtu yi ñetti waxtu yi kenn warta dugg ne kenn lu dul dangaa diisoo de min xabli salaatil fajri njëkk jullee fajar wa awa awa ina tadaw ak waxtu wa de a tadawoona ak waxtu wa da ngeen teg siyaabakum ay mbalaan seen min azahirati njollor de wa ba wa wa min baadi salaati isha ak gannaaw ak ak gannaaw jullee géede yàlla nag wax ne ne ñetti waxtu yi képp ku ci dugg ci nekk ci nekk jàmbur na diisu moo xam seen jéebéer nekk seen kër yi seen doom wala seen i surga nekk ci kër wax ñetti waxtu yi moom bu ñu dugg ci néeg rek nañ fëkk mooy waxtu njëkk ñi julli fajar booba kuy dugg nekk jàmbur da war a fëkk ak lu ngeen fa am sañ-sañ ak waxtu njolloor nga xam ne nit ki boobu waxtu woowu nit danay sonn si mi yéreem tëdd ak waxtu gannaaw gee maanaam guddi gi yëpp rek la ci jublu ku dugg nekk jàmbur da war a fëgg yéen jéebee yi nga xam ne yéen nekk ci kër ga de ndax ñetti waxtu waxtu yooyu mine awraatin ñetti waxtu ñetti waxtu awra la lëkkum ñeen leen waxtu yi a nit ñi dañ ciy faral di simi seen yére yi di ko teg laysa aleykum déet di war leen wala alayhim bu caageen war leen junaahun bàkkaar baxduhun na gannaaw yooyu la waxtu gannaaw yooyu la tawaafu na ngeen di war aleykum ci yéen baadukum ñenn seen ala baadin ci ñenn ñi de gannaaw waxtu yi nag seen jaam yi ak seen xale yi ndaw yi ak seen surge yi nekk ci kër gi gannaaw ñetti waxtu yi nag waxtu wu neex mën nañoo dugg ndax ñi ngay dugg ñi nga war a defal nekk ñi nga war a bale ñi war a fomp ñi nga war a indi lekk ñi nga war a indi naan yooyu yëpp waxtu ñett gannaaw ñetti waxtu yi waxtu leen neex mën nañoo dugg de kazalika yi xam nanu mbiri jaami hakimun aji wa ida balaga dem jëm ne al atfaalu gone ya ah, al diisu ci mboolem waxtu yi de yi ñu nag ne ne mën nañoo ñàkk diisu Euh, ga lu dul ñetti waxtu yi fi ne may nañ leen waxtu yëpp waxtu yëpp dañ ko war a diisoo heure bu ñu dugg bu ñu xasee ba gént bu ñu xasee ba gént ba jot jotuwaayu góor bu ñu dugg ci nekk nañ nañ diisoo de ah, kamasta dana naka diisoo alladina ñi nga xam ne min xablim aji nekk dañ ci njëkk seen kazalika nako noonu a bayin laaw lay biré daan lakum ñeneen ayaati ay kawtima wallaahu yàlla alimun aji xamum hakimun aji xarañoon ci jëftewu nag wal qawaayida jigéen ñi di way jékki mina nisaay wal qawaayida ñi di way jékki mina nisaay ci jigéen ñi laati ñi nga xam ne laa yarjuna defuñ yaakaar nikaan ak denc fa laysa alayhinna detti war leen junaahun bàkkaar an yadaana ba ñu tëral siyaabahunna ay yére seen de al gayra mutabarrijaatin aduñu way feeñal bi zinatin ci taar de yàlla nag wax na ne jigéen ñi nga xam ne ñoom dañoo dem ba nga ne nekk nañ mag gisatuñ mbërëg deetu dootuñ gis mbërëg gisatuñ mbërëg te màgget nañ góor ñi amatuñ ci ñoom benn xemem jigéen ñooñu nag may nañ leen muuraay gañ digaloon na jigéen ñi nañu muur seen baari ba seen xarxaram yi di feeñ ñoom ñooñu may nañ leen ñu musóor rek teg nii bañ a muur seen seen doq yeeg yooyu yëpp yàlla may na leen ko de yàlla teggi ndax booba amatul benn xemem boo xam ne góor ñi mën lañ leen koo xool pour xemem jëm ci ñoom de buur na waaye wa an yastafim na buñ fegoo nag xayrun moo gën lahun na ñoom de wallaahu yàlla samiun aji dégg la def na wax ko ah alimun aji xam mu de la nekk seen xol ñoom nag waaye buñ muuroo nag moom moo gën de buñ muuroo muur buñ leen digaloon moom moo gën de waaye loolu nag ci atti góor ñi la maam góor góor ah, dafay xool ci mën naa xool jigéen xam ne góor rek ci xaqi góor la góor dana bu gisee am màgget moo xam ne màgget na dem na ba nga xam ne kootoon na ay wenam daanu na benn góor amatul ci moom soxla pour xemem ko waaye bu ci xaqi ñoom jigéen ñi ndax ñoom jigéen yi ñoom toujours rek ña ngay ña ngay wax ne bët bu seen na nañoo am jëkkër màgget lu màgget màgget bët bu seen ma ngay yaakaar ne moom mën naa am jëkkër de mën naa am jëkkër moom mën naa am ci naagu mukk loolu moo tax ñoom waxtu wu nekk ñu yaakaar loolu de dafa am benn màgget boo xam ne dafa feebaroon feebar bu metti feebar bi yàgg lool ay doomam jaaxle dem ooyi docteur bañ ooyee docteur bi docteur bi ñëw daal di gis mère bi mi ngi sol yére yu rafet mi ngi takkaay tuur far euh, euh, euh, di xeeñ parfum bu neex docteur bi xool xool xool ba ci yàgg wax doomi ne leen di utal leen ko jëkkër ah, Ah, xale yi na ko yow docteur kanaa da ngaa dof kii mi ngi màgget ba kootoon nga naan utal leen ku jëkkër mais leen utal leen ku jëkkër mais bi ne leen yéen yéen a wala docteur bi moo xam def leen di docteur bi wax def leen di docteur bi wax de yéen xamu leen docteur bi moo xam utal ku jëkkër ne waaye kooku utee naag Rabia tulaati bi moom bi jëkkëram génnee àddina dafa ah, dafa toog lu yàgg amul ki Xasan al Basri Sufyaan ki bu mag boobu ñëw ànd ay saxaabaam ñëw ne dafay gis Rabiatul Adawi mu ñëw ñu ne ko Rabiatu ñu ne ko Xasan al Basri moo lay ne waaw na ñëw ba mu ñëwee nag mu def benn kiiraay seen diggante muuru daal gisul xar-xaram mi ne ko Xasan al na ko gannaaw fi mu ne amoo jëkkër te jigéen war te ñàkk jëkkër kaay ma takk la kaay ma takk la nga nekk sama jabar Rabiatul Adawi ne waaw nañ waxtaan dama laa bëgg laaj ñeenti question ñeenti laaj laa la bëgg laaj boo ko tontoo rek man na nga takk ma waaye boo ko tontu doo ma takk mi ne ko ma mi ko bu may dee bu ñuy ngëb ëllëg sama roxo gi may gëm yàlla laay wala ci kéeféer xasanal ko ah loolu xaw ma ko yàlla rek ko xam mi ne ko buñ ma suulee ci biir bàmmeel ba mu munkir ak na ñëw di ma laaj ndax damay tontu tontu bu jub wala duma tontu tontu jub wala safaan ba laay tontu bu may laaj man rabbuka kuy sa borom ak luy sa alquran ak luy sa nangam ndax damay tontu tontu bu jub wala mi ne ko loolu xaw ma ko yàlla moo ko xam mi ne ko bu ñu walee bufta bi téere ya mu jëm mu jëm ci ñu ñi ku nangoo ndeyjoor jëm aljana ko nangoo càmmooy dem safara ban loxo laay nangoo ndax ndeyjoor wala càmmooy ah, mi xaw ma ko yàlla moo mi ne ko bu yàlla waaye na fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir kuréel bii ñooñ safara la jël bii aljanna lañ man bañ kuréel laa bokk ci ñoom mi ne ko ah loolu xaw ma ko yàlla moo ko xam mi ko man maa man nag xam naa yëpp loolu yëpp xam naa ko kon aw ma xam ne nag xam na loolu yëpp amul soxla ci jëkkër ne aw ma soxla ci jëkkër mi ne ko kaay ma laaj la yow Hasan al ko xel ñaata la ci yàlla bind mi ko fukk mi ne ko nu mu ko séddalee mi ne ko juróom-ñeent yi la jox góor benn bi mu jox ko jigéen mi ne ko bànneex nag ñaata la ci yàlla bind mi ne ko fukk nu mu ko séddalee mi ne ko juróom-ñeent yi la jox jigéen benn bi mu jox ko góor mi ne ko man ma mën a wattu sama juróom-ñeenti bànneex ci sama benn xel moomu yow mënoo wattu sa juróom-ñeenti xel yi ci sa benn bànneex rek daman ilayka anni ana laa xaajata lii fi nikaa sori ma man aw soxla ci jëkkër de aw ma soxla ci jëkkër de su yaa ngi ma boo de laysa alal ama te di war aji seen ma arajun du war aji du a xarajun bakkaar wala alal mari uh, uh, du uh, caageen aji feebar xarajun bakkaar de du war bakkaar de wala ala anfusikum yu caageen war ay bopp seen an taakulu ba ngeen lekk ba ngeen lekk min buyutikum ci néegi doom seen de ba ngeen lekk ci néeg yi ay doom seen allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim allahuma salli ala sayyidil awwalina wal axirin yàlla mu ko tàmbali ba ak suñu yàlla nga àggale jàmm ci bañ ca bañcee dem ndoog yàlla bi yàlla mu ko xam dëgg-dëgg yàlla ñu ko xamal barke alquran yàlla ka ko wasal ki ñu ko wasal ci moom li tax ñu wasal ko ci moom yàlla bi ci barke Baay allahuma salli ala sayyidina